sant bu baax Mame Mbaye ci taxawaayam boo xam ni c'est extraordinaire ci bis bi waaw mooy leen ko loxo man maa bëgg ñu tàcc ko parce que dafa def loo xam ni def dama ci am na yéen la ko defal chez vous approche de la réalité. Serigne Bamba nee na nee na Seydina Muhammad maam Bamba nee na Muhammadu Rasulullah salli ala babil huda salli ala babil huda salli ala babil huda salli ala babil huda نايل المدى مول الندى ليس الهدى ماهردا باب الخلا والكرم سرين بامبا نينا سيدنا محمد مي موي باب الخلا والكرم سيدنا محمد إمام المرسلين خير الأنبياء خاتم نبينا نجول مكة محمد رسول الله مصطفى خير الناس خير خلق الله أفضل البصر سيد البصر خاتم نبينا نجول مكة محمد رسول الله سيدنا محمد إمام المرسلين خير الناس سيد البصر أفضل البصر خاتم نبينا نجول مكة سيدنا محمد محمد رسول الله مصطفى محمد مكمل مؤمل ممجد musammilul mudassirul njool makka borom makkatal mukarrama borom madinatul munawara borom liwaul hamdi borom barrière orba borom manta bu rafet muridi jóg leen màggal muhammadin ndaw ñi mbak ñi ñi yow rek lañ bëgg xam nga la motax da nga bëggaabul mam mbay ñaa ki ku jara a xel la ministre monsieur le ministre ki ku jara a xel la xam lu tax ñu war ko bàyyi xel li ko top warona dem tay ji nek ci bistro yi wala ñu dem tukhi ji yamba wala ñu dem nana ji sangara wala ñu dem moy ji yalla mu dajale len fi tay ci bis bi di leen dundloo yalla ji di bëgg lo yëne tabi alayhi salatu wassalam ku jara a xel la ki bu defoon ni mom ndaw ñu di delu ci waat xamaat ne réew mi ndaw ñi dafa compter ci ñoom la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ay at nga koy def ca kenn fekku la ci ma gëm ni nga ay at ci kanam tamit diñ ko def waaye ñëpp dinañ la fekk si ñi ngi jël mbooloo mi seede ni fasante nañ ak yow kóllëre ñi ngi jël mbooloo mi seede ni suñu bàjjen ay da jong boole nañu ñi ngi jël mbooloo mi seede ni la foo taxawati dinañ fa taxaw buñuy sant sayidina Mouhamed jikko rek lañ mëna wax jikko yi sayidina Mouhamed am yàlla nañ ko bokk jikko yi sayidina Mouhamed am yàlla nañ ko wasaare ci say taalibe jikko yi sayidina Mouhamed am yàlla nañ wasaago ci jeune sénégalaise li ngay def ni defoo ko lu dul xeex ak seytaane pour mu bañ a egg ci ndaw ñi parce que tey képp guy jeune seytaane dina la yóbbu mën na laa am mën na laa jege waaye yow nga dajale ay xale ay mag ñoo xam ni lu nekk mënoon naa xew ci guddi gi nga woole pour ñu fàttaliku ci koy Seydina Muhammad yàlla la yàlla suñu borom fay waaye tamit réew mi amal na la njurbe ci jamono joo xam ni jikko yëpp yàqu na ci jamono joo xam ni ngor amatul ci jamono joo xam ni wax lu dëgg moo fi xew ci jamono joo xam ni foo moo ëpp liggéey foo ëpp dëgg ñu ngi lay sant di la gërëm di sàkku sa ñaan nag ñu ngi sàkku sa ñaan pour réew mi dal loolu mën nañ koo wax ci turu njiitu réew mi mooy sàkku sa ñaan ngir réew mi dal sàkku sa ñaan ngir réew mi am jàmm sàkk sa ñaan ngir mu am xéewal ak baawaay bi nga fiy wax ndaxte wax dëgg yàlla soxla nañ ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu yaa xayu yaa xayum kun li mujib antal mujibu wal karimu wal xarib ilayka waxdaka فررت من سواك فكن بساك خاجدي إلى هداك قال الله تعالى يلا نينا ñetti mooy seen yóbbal 24 mu ne ñett yi dana tax nit yàlla jéggal ko tàbbal ko aljana àjjana joo xam ni nag yaatuwaayam toll na ni asamaan ak suuf jar naa xam nee na da ngay dépenser sa alal ci yoonu yàlla soo ko mënee ak soo ko mënul mun a del dépenser sa alal ci yoonu yàlla politiciens yi kenn dépensé seen alal ci yoon yàlla dañu fekk ku taxawal bis ñu jàpp ci ñiy joxe nag ñuy joxe xaalis ñii ñëw wax ju neex kon ñoom bokk nañu ci boobu waaye ñett la yonent yi wax ni ko boole joxe sa alal ci yoonu yàlla jamono neexee ak bu jamono naqaree yépp li ngay def ci yoonu yàlla doo ci xaar kenn neel benn bu ñaareel bu jafe la mu ne bu ñaareel bi boo meree boo meree fexeel boobu ko kenn xam ñetteel bi mooy li Sénégal yëpp soxla nga may nit ñi jàmm am na ñoo xam ne dañoo bari histoire bari histoire ba duñu may kenn jàmm di ñaanal soxna Aïda bu baax ci taxawaayam ci bis bi def na ci xelam def na ci dooleem ba pare jël temps bokkoon ñun guddi gi guddi leen nag du ren la mos a ñëw déedéet suñu kóllëre yàgg na kon yàlla na ko yàlla fay xolam di sant bu baax Mame Mbaye ci taxawaayam boo xam ni c'est extraordinaire ci bis waaw mooy leen ko loxo man maa bëgg ñu gàcc ko parce que dafa def loo xam ne def dama ci am mbir yéen la ko defal waaw bu soxla may wax ni ma defal waaye ku def lu baax da nga koy wax moom laa seeral yëpp di fa sante kóllëre ak ñi fi ñëw ñëpp tey wax mbokk yi ñu gën a jàppale Mame moom laa bokk je pense que ñëpp dinañ ma may ko joxoon sama bopp